waaw vraiment damay féliciter samay joueurs parce que match boo xam ne bi ñu jugee si final ñoo am ay blessures yu bari yoo xam ne mën ne la woon ñu doon football match boo xam ne au moins pour premier mi xawoon na métti trop trop trop trop trop équipe boo xam ne équipe Colobane boo xam ne mu nekkoon seen temps fort premier mi-temps deuxième mi-temps bi boo bi si la amee réaction yàlla def ñu dem tiro bi tiro bii bi ñu demoon tiro bi nag parce que dama ne kenn ku nekk mënoon na gagner moromam yàlla def na ne. application bi booy assuré nañ penalty yi yàlla dimbali ñu may ñu ndam may félicité samay joueurs tamit i félicité waa Colobane parce que ndam li tamit mënoon na nekk si ñoom ay yàlla ñun la ko jox tamit ñu ñu ñu leen maa ngi leen di wax waat samay joueurs xam ne sama objectif man mii woon pour yóbbu woon équipe bi finale régionale la woon yàlla dimbali na ma si dama si gën a sant yàlla tamit xam ne vraiment vraiment samay joueurs li ma leen sante woon yëpp daf respecté nañ ko ko waaw loolu moo tax mu xaw a moo ñu xaw a am chance tey ji dañu xaw a métti dañu joué équipe boo xam ne mosuma ko gis mu joué tamit xawoon nañu posé ay problème parce que premier mi-temps bi bi ñuy démarré bi ñuy démarré 20 jëkk yi ñoom ñoo moomoon match bi nekkoon na seen temps fort ah, xam ne booy adversaire bi xaw nañ ko maîtriser moo ñu xaw a indil moo ñu indil match na parce que nag mosuñu joué match boo xam ne joué nañ match boo xam ne bu match bu métti la tamit suñu joueur yi boo seetloo am na si ñoo xam ne dañu sentir commencé sentir Fatima match yi ñu tegloo dafa xaw a métti yàlla may nañu ndam dañ siy gën a sant yàlla rek xam ne lépp yàlla yàlla la ko parce que ñun dañuy jéem rek yàlla nag moo mën may nañu ndam mi noon na ko jox Colobane tey yàlla jox na ko ñu xam ne maa ngi félicité waa Ndargu Ndaw félicité samay samay jour ak waa Colobane tamit vraiment def nañ li ñu waroon def lépp yàlla moo ñu may ndam ñi ko waaw moom laa bëgg a confirmer waat parce ne am naa expérience dem si ay phase nationale football naa ko def naa ko moo tax sama objectif loolu la woon. pour yóbbu leen ñu dem jouer phase nationale beneen niveau la ñoom xamuñu ko man football football naa ko defe naa jël ko ñaar yoon am marbat bu Louga ñoom marbat 2015 euh, côté yooyu 2015 2016 yooyu côté yooyu football naa ko am marbat bu Louga naa ko ñaari tali door na ma final ndar joué naa ko kon am naa si expérience bu bari yóbbu naa ko ba tamit ak euh, a Tamba ñu gagné ma fa huitième de quart de finale de finale kon am naa chance boo xam ne am naa si expérience moom laa leen wax jéem leen na ñafe te fu ñuy def bu équipe bi phase nationale ñu fa yóbboo beneen niveau la te réussir naa si loolu tamit dama si gën a sant yàlla rek léegi nag damay mat match par match léegi nag sama objectif moom mooy coupe ba pare ma soog a wax pour phase nationale yi ñaari équipe yëpp noo déggoo fubal naax ñoom match entraînement mbaaw gagné leen 2-1 yore woon naa leen tamit xam naa leen ñoom it dañuy football yore naa leen man bi ma jógee far defe naa yore naa leen naa xam naa leen bu baax Guy Borgnes tamit joué naa moom ku nekk xam naa ko kon jarul ma leen xool non dal na bu baax dal na bu baax match bi moo doon sama match bi gënoon métti match PS la woon bi may ko quoi équipe bu ma xamul la woon quoi ay maîtriser naa ñaari adversaires yi ma war a dajal lépp ah, damay gën a sant yàlla rek xam ne yàlla moo ma jox lii dama koy gën a sant rek parce que mu ma koy dañuy ñaan rek di sabablu yàlla may nañu victoire